mu am nag ndaje mu am solo moo xam ni tey jii moom lañ fiy amal loolu mooy lan ku ne xam na ni lépp li jafe ci barab yëpp yombe na ci barabu Serigne Touba bii di dëkkub Seexul Xadim bi ndax dëkkam bii la waxoon ni sunu borom nag ko aaral waaye lépp loo xamante ni bii lu nuy jëfandikoo la te doomu adama di ko jëfandikoo tam dëppoo ak lislaam nag ko sunu borom ñoddil ba mu ñëw ci dëkk bi. looloo waral ba tey jii am benn hôpital boo xam ni hôpital la bu jafe-jafe-jafe fii ci réew mi di Sénégal waaye yombe na fii ci Touba Mbacké loolu nag mu amee ci baaxub Serigne Touba ñuy ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mouride mu yàgg fi te wér ndax bi ñu nga xamee ni ñu ngi taxawal hôpital boobu muy hôpital boo xam ne day fàcc jalis jalis nag suñ ko waxee mooy feebar boobu nga xam ne mooy feebaru rein mu nekk lu jafe-jafe lool waaye bi ñu ko taxawalee Moustapha Diakhaté mi nga xamee ni mooy président initiative bi nekk itam euh, coordonnateur bi nekk ki nga xamee ni itam lëkkaloo na ak ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar au niveau national ak ñu nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp hôpital boobu ñu fas yéene ko taxawal fii ci janatul mahwa loolu nag mu Mountakha daf cee joxe ay ñaan yëkkati 30 million tàmbale ko ci waaye njabootu Serigne Touba gi ñoom ñëpp itam ay participation yoo xam ne def nañ ko fi jamono yi ñuy wax ak yéen kilifa yu bëri agsi nañu toog ci jataay bi fas yéene tàmbale li nga xam ne moom mooy programme bi. wéradi nag mbokk yi képp koo xam ne yàlla may na la tawféex yi nga sab sablal fuddu dem saw yoon xéewal gi la yàlla may xamoo bala koo xam mu gaar la wéra di gaar la moo tax Serigne Touba radiyallahu anhu daana wax ne yitte bu dee ñaar wér daa am Serigne Touba dina yitte bu dee ñaar wér daa am nit ki boo nekk soxla mu naan nangam ak nangam daa mu wér rek bu wérul moom boo nekk soxla wér képp lay wax moo tax mu ne yitte bu dee ñaar wér daa am moo tax ba muy ñaan mu naan washfi jamia al muslimina ajila tumma qihim xawfan wa xusnan ajila ñetti mbir a ngi foofu seen nga nit ku wéradi faaw alxawf xos xosnu nekk ci moom ku góor góorlu ba taxawee ci yooyu rawat na jalis bii ndax nit koo xam ne daraa ngi sa poos sax naam man ngaa fay attan nga hôpital bi xay na attanoo privé waaye attan nga ba bi amoon ay place attan nga ko waaye fan lay fajoo am ma place kooku njàqare li nekk ci moom tiitaange li nekk ci moom ca du yem ci moom waaye ay bokkam ay xaritam mboolem ku ko xam rek yëg-yëg boobu la ñuy am diggante ak moom mooy amuñu fu ñu fajoo kon kooku bu yàlla dogalee ñu taxaw taxawaay boo xam ne bu ko yàlla sottalee dana saafara lu bari ca loola kon kooku yëg-yëgu bépp jullit bu nekk la nga ca mane war ko ca taxawee man-man yi nag wuute na ku nekk am na loo man kilifa diine gi am na kilifa diine yoo xam ne bu ñu ñëwoon fii tey baas fee ab baas ne bala ma fee jugee fi laay yendu bés bu set bala ma fee jugee lu tabax centre bi dama fee fekk diir bu gàtt ay taalibe yu bari rañaane France rañaane fu nekk ñëw fekk ko fi lu ko tabax fekk ko fi dañ naan sëñ ba du yendu ca mbaar sëñ ba du yendu ca naaj donte ab dërëm mën na cee bañ dem waaye am na kaddu gu ko yàlla jox mu jële ko Cheikh Khadim radiyallahu anhu koo xam ne bu ko yëkkatee ñooñu dañuy daal di riir fekk ko fa fasaas kilifa googu nag xam ne loolu laa ko ci war taskati xabaar yi tasaare ko ba ku ci war ci jot ku ci war a jot jot ci loolaa leen ci war ku yàlla dénk dara fasaase la man mooy daal taxaw ci jaayante génn sa alal def ca ku yàlla dénk nga mën a jéptaane noonu waaye bu kenn xeeb yow maçon bi bul yaakaar ne amoo xaalis amoo alal ah kay am nga alal alal ji mooy lan mooy bu ñu tabax centre bi danaa fa joxe sama fukki fan yoo xam ne gratuitement lay doon danaa fa joxe sama ñaari fan yoo xam ne gratuitement lay doon yow mi nga xam ne yaa yor camion benn bi danaa fa séene bu ñu tàmbalee tabax nangami charge danaa ko fa joxe ñi yor camion benn ci Touba ku nekk ne woon naa joxe nangami charge suuf du ñu téwoo suuf ñi jaay ciment bu ku nekk ne woon naa joxe nangami tonne sa ciment dootu yittewoo ciment ñi jaay fer bu ku naa joxe nangami barigo wala nangami tonne dootu noonu ni jaay xeer noonu kon buñ ko sotee song ko ni ñu ko war a songee tabax bi mën naa taxaw carreleur ba di xaar loolu électricien ba di xaar loolu plombier ba di xaar loolu ku nekk ci ñoom gëm ne am na fan yoo mën a joxe li fi ay maçon li fi ay plombier li fi ay électricien ku nekk bu jaayantee ci centre bi centre bi du fay dara ci wàllu main d'œuvre kon nag loolu moo war a nekk taxawaay ku nekk ku nekk la war a taxaw na nga ko ca xam ne lu ci waaye def sa bopp nga ko defal man amila saalihan fali nafsi te képp ku xetli sa bokkum julit mu nekk ci yitte yonent bi sallallahu alayhi wa nee na boo bëggee say aajo di gaaw a faju fexeel ba sa yitte yi mbokkum julit nga di ci taxaw te yitte mënut a gën a rëy ci nit ki nit ki wér di bëgg a faju yàlla yàlla defal tawféex ñu ngi jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf. sëriñ Mouhamadou Basir ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi dafa am tomb yoo fekkoon ñu tàmbali ko danañ ko baamtuwaat ngir nga teewe dama wax ne yoonu murit am na juróom-benni kuréel yu fi nekk yoo xam ne ñeent ñi de amal nañ njariñ yoon bi waaye ñaar ñi dañuy yàqal yoon bi ma bëgg ko leeral benn par benn ñeent yu jëkk yi mooy borom xam-xam yi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam ci yoon wi ak xam-xam bu mu mën di doon te diine ci soxla ko yoon wi soxla ko bi ci topp mooy borom xel yu rafet yi nga xam ne buñ ko soxlaa mën nañ caa xelli lu amal njariñ jullit ñi loolu yoon wi am na ko bi ko ñetteel mooy borom alal yi ñi nga xam ne seen alal lew na leen doom te mën cee liggéeyal lislaam yoonu murit soxla ko am na ci biir yoon bi bi ko ñeenteel mooy ki nga xam ne doole yaramam la yor xam-xamam amu ca lu ko doy xel ma am na lu ca des xëy na alal ji noonu waaye nag doole yaramam am na ko ba mu doy sëkk te ci misaal tey buñ gaare woon fii ab camion matériel ne ci ba fees bu ñu nee sëriñ bi nee na nañ ko wàcce léegi ci minute yi néew ñooñu daa koy song wàcce ko tegale ko fi suuf te xëy na bu ñu leen laajoon alal duñ am kàttanu joxe ko bu ñu leen laajoon xam-xam duñ ko mën a joxe bu dee xel mu rafet duñ ca sori kon kenn ku nekk am nga loo man ñooñu nag sëriñ bi am na leen ba noppi waaw kon nag laaj bi may laaj foofu ci jeexal mooy ñeenti ñee yoon wi soxla diine ci soxla leen ñu amal sëriñ Touba njariñ lool ak askan wi ana lan loo moo tee ñu leen joxoñ leen fi barab tracé leen yoon ñu mën a jaar ngir ñu jariñ yoon weeg diine ji waaw ñaar ñii nga xam ne ñaari kuréel lañ yoo xam ne dañuy yàqal diine ji yoon wi ana lan moo te ñu seppi leen teg leen fële loolu bu ñu ko deful fii lañuy ñuy toog résultat bu egg du fi mën a am te lii ñuy tàmbali nañu moytu ndax am na lu ne ci seen wet am na résultat bu mu joxe muy hôpital Matlaboul Fawzayni ay taalibe ko liggéeyoon état bi defu ci dara taalibe yi àndandoo woon liggéey ko ba mu sotti nun yëg nañ ne bu yeexaatoon un an wala deux cent yuñ ko joxewul kon liggéey bi du egg nun 2006 la ñu sëñ Saliou woowoon ñu di leen jubale en tant que ay taalibe yu bokk sëriñ Touba ñu war a xam ne yéeneente jàmm waroon a nekk ci seen biir ñuy xiiroo ba Serigne Saliou tali ci woo ñu man mi ci ñu jiite woon délégation ba laa bokk mu ne ñii kat dama cee jéem lu bari mu xaw maa të ngeen di sama njaboot ma bëgg yoon bañ cee amu yoon te ngeen lijjantil ma leen. loolu année 2006 la fekk na hôpital bii pare ne kon du egg gis ngeen résultat ba tey fa mu mujj ñooñu ñëpp taqalikoo nañ kenn ku nekk mënatoo cee tabax sax ab mbànd mu egg loola kon na ngeen moytu mu dal fii Serigne Abdou Lahad nee woon na yoonu Serigne Touba lépp loo koy tudd loo ca tàmbali mu daal di egg xamal ne Serigne Touba nangu na ko waaye loo ca tàmbali mu tëla ticc xamal ne Serigne bi àndu ci sa pexey bopp la wasalaamualeykum wa rahmatullah jataay bi dafa mel ne sëriñ bi doon wax léegi wax ne moo toppi wala moo jiite assises wax na loo xam ne lu am solo la moo di dañuy wax ne fegoo benn dërëm moo gën fajoo téeméeri dërëm kon xamal nit ñi jàngoro ji mooy lan ak jàngoro ji lu ñu yaakaar ne moo koy joxe. su ko defee nit ki man koo moytu bu yàlla nattoo jaam bi nag ba nga xam ne loolu ñëw na su boobaa nag lii door am njëriñ ci nit ki kon xam jàngoro ji xam li koy joxe xam niñ koy fegoor loolu itam lu ci am solo la lii sukkandiku ci li sëriñ Modou la wax léegi sëriñ Touba am na lépp sëriñ Touba dafa waxoon ne yéen waa Madina am ngeen xéewal gu toll ne di yewwoo ci wetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon kay ku yewwoo ci wetu xaadimu rasul war ngaa delloo njukkal sëriñ bi boobu le fustum bi kaw ni na abdillahi jaarakum wa kaw ni kum xawlahu fal tahmadu samada rik yéen waa Madina na ngeen di sant yàlla seen boroom ndax li ngeen dëkk ak yonante bi sallallahu alayhi wa nañu sant yàlla sunu boroom ci dëkk ak sëriñ Touba lii nga xam ne nag moom la dëkk bi yàlloo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg képp koo xam ne kii jàpp nga ne yow soo defee mu baax jàppal képp koo xam ne jàpp nga ne soo bàyyee mu bon téyel waaye du tere sëriñ boobu li mu bëgg dana ko am ndax da nga gis fukk yoo xam ne ñoo man téeméer gis téeméer yoo xam ne ñu mën junni te ñu ngi ci biir mbooloo mi waaye li doon gën a rafet nag te gën a baax mooy képp koo xam ne kii da ngay tuddoo sëriñ bi ak foo mën a nekk yoo xam ne biir Tuubaa nga nekk ak feneen foo mën a nekk lépp lu ñu yëkkati ne sëriñ bi soxla na ko ci dëkk bi wala njabootu sëriñ bi ñoo ko soxla dem ba ci sëriñ bi mu jox leen ci ndigal ñëpp ànd ca loolee waaye nañu moytu li nga xam ne moom la sëriñ Modou Lo daaneele léegi mooy lépp loo xam ne nit a ngi koy yëkkati te xam ne sellaloo ko sa digganteeg sëriñ bi faw xal seen nga koo rëccu ndax sëriñ bi kenn mënu koo nax yàlla kenn mënu koo nax kon li ñuy def na nekk loo xam ne lu doon dëgg ci nun lay doon te mu nekk loo xam ne lii itam man de Touba ca kanam bi ñu ñëwee di ma ko ñaari at laa daggu benn yoon ci dara Mouhty yaakaar naa ñaari at yi jeexagut leneen noonu leneen noonu kenn ku nekk na jàpp ne li ngay def boo ko defee bu baax jàpp ne soo téyee sa loxo mu yàqu nañu xool nag sëriñ bi ba xam ndax may bi ko sunu borom may da koy nangu wala di dellu ginnaaw ku ko yaakaar ku nekk nax nga sa bopp sëriñ Touba moom mbiram kanam rek lay jëm kenn mënu ci dara ku def woon ne bu fi njabootu sëriñ Touba jóge ñi ñu tudd di tudd ay doomam mbir mi du mel nii kookee njortam war na ko. mbirum Serigne bi moom li fekk ku ñu tudd Serigne Touba di ko tudd mi ngi fi nañu gëm ni rek su fekkee ne li war a nekk ci nun nekk na ci nun mbir mi kanam lay jëm waaye du dalu ginnaaw. te it kenn ku ci nekk la lay sikkal yaa koy defal sa bopp waaye lay lore moom yaa koy defal sa bopp Serigne bi moom yàlla defalal na ko ba noppi. di nga xam ne ñoo te mënoon moo fee wutuwaatee ci jotaay bi te wax fi kàddu yoo xam ne gerte dellusiwaat ndax li ma waroon wax samay wax tàbbi na ci seen biir kon cant ak ngërëm rek lay muy Serigne Mouhamadou Lo Gabou ak Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khoudous ak Serigne Amadou Rafa yi mu dem waaye kàddu yi ñu wax ku ko dégg te xam leen ñoom da nga xam ne kàddu yi dëgg la dëgg nag genn rek la. ñaari dëgg amul ñett dëgg amul genn dëgg amul li war a fi daa wax naan yaag sa dëgg maag sama dëgg ak dëgg waaye nag li am solo mooy dëgg suñu borom bi li ñu wax nag wax ju dëgg la kon li am solo rek mooy ñu fexe ba dégg ko te topp ko te fexe ba wattandiku ci liggéey bi kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa hôpital Matlaboul Fawzayni di sant kuréel gi nga xam ne itam ñoo taxawal li ci lu sëriñ Moustapha Diakhaté ak mboolem ñu ngi ko àndal ndax jaamu yàlla kat li Cheikh Mahamadou Fari daa wax jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon lii képp ku koy def fu ne li ngay ñekk ñaan mooy yàlla nañ suñu borom musal ndax jàngoro ju diis la metti waaye nag yàlla moom moo xam li muy tegu jàmm te am na fa Sëriñ Tuubaa wax ne is is ma ahadun maasuman min al marad wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar loolu ñëpp xam na histoire bi sëriñ bi di taalib xasida ma la woo sifaay diggam ak soxna maam Fatick Issa Diop woo jur ak Cheikh Ibrahima Fatick kon loolu sëriñ son bi muy wax ci jamono yi nga xam ne ñi ngi door liggéey hôpital Lukke ba mu àgg danaa wax ne mag ñi dañ daa yéem rafetaayu hôpital la mu ne waaye li ci dooleen kéemaande mooy ku ko mës a yëm ku ne rek tàbbi na ci biir kon nag ñun yar nañ ceen mosul waaye yéen ñi koy def nag te di ko defal bindee fi mu jëm ci njaboot gi taalibe bi ak jullit yi yàlla na suñu borom nongul leen di gërëm it sëriñ Maysa Touré mi ci pëstéefam ak taxawaayam ndax bi nga xamee ne soxla ngeen pàkk bi ñëw ci wax ko mën naa ne li ko yàggal sax xëy na ci man ñii la ndax xatali jamono mu waxoon ne fay nañ ko ci lu bari da koo bëggoon a defar waaye jaayante na ko jëm ngir jëm Serigne Touba comme xam na ne Serigne Touba ko soxla du ci laaj benn def na ko addi Serigne Touba ne ma kon dama bëgg ñu ànd ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ma jébbal ko ko bu ko defee mu jébbal ko waa hôpital bi loolu rek mooy li indi woon yeex-yeex bi ba yàlla dogal mu def ko Cheikh Mawadou Mountakha wéyal liggéey loolu ci yéen kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm. di ñaan liggéey bii nga xam ne tàmbali ngeen ko te muy liggéey boo xam ne képp ku xam ku ne loo ci man dama ko ci ndax xam ne ci dimbale bindee yi la bokk te suñu borom wax ne eh, ku yërëm ñi ci kaw suuf yàlla daal di yërëm te yërëm nit ñi nag bokk na ci jàngoro joo xam wóor na suñu borom te tegu jaam te te jombul kenn ñu fexe ba jàngoro jooju yàlla eh, woyofal ko ci ñoom. amin amin ya rabbal alamin amin amin ñu ngi sant soxna yi yëpp ci euh, hôpital mag bi nga xam ne si ni ñu ngi ko fas yéene teg fii xeer wi di euh, lépp feebar boo xam si mooy jëm ci wàllu jëlees waaye nag mu doon liggéey boo xam si tamit ki ci njëkk a dugal nag dal na xel muy Serigne Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér 30 millions la jël yëkkati ko jox ko taalibéy Serigne Touba yi jox ko waa hôpital bi ngir lan ñu tàmbali ci liggéeyu Serigne Touba bi waaye cérémonie bi tamit taalibéy Serigne Touba yi fenn fu ci nekk tamit jóge nañ fa ñëw fii nga xam ne si ni saan mooy ci hôpital bi ku mel ni Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadar teewal fi Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ne moom la ñu xoolee maam Thierno Ibrahim daamal Daaru Musti waaye daal yaakaar naa daal taalibé Serigne Touba ni ko Serigne Bass Abdoul Khadir waxe léegi ndax doom sax mën nga ko fee bàyyi mu di ñaanal yaakaar naa doom joodee bu demee ba wàcc ab liggéey kon dootoo amati ku la ñaanal waxi Serigne Bass joojee man naa jàngate bu baax a baax a baax waaye li ci doy waar mooy nga tabax hôpital wala nga bënub teen wala nga defar fi garab wala ngay dimbali jaami yàlla yi loolee foo mën a nekk ci àdduna bi dala fay fekk kon nag jëf jël la ndigal a ngoog ñàkk jariñ nañu képp ku ko déggul naka ko jot na moroomam jottali fii daal njambum daakaande la weñ wu nekk nag noo ci sóobe noonu nga cay taqee sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téyër sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téyër wasalaamaaleykum wa